Matthieu saar ñaar ginnaaw loolu yéesu ak taalibe ya jege woon nañu yerusalem ba ak si dëkku betfase ci wetu tund oliw ya noonu yéesu yebal ñaari taalibe ne leen dem ci dëkk bi ci seen kanam bu ngeen àggee dingeen gis mbaam mu ñu yeew ak cumburam yiwi leen leen indil ma leen te bu leen kenn waxee dara ngeen ne ko borom bi da leen soxla kon ca dina leen bàyyi ñu dem yeesu def na noonu ngir lañu waxoon jaarale ko cib yonent am bi mu naan waxal waa siyon seen buur a ngi ñëw ci yéen ku lewet la te war mbaam sëf dig cumbur doomu mbaam noonu taaliba yee dem def loolu leen yéesu sant ñu indi mbaam ma moom ak cumbur ga lal ci seeni yére yeesu toog ca ñu ëpp ca mbooloo ma lal seeni yére ca yoon wa ñenn ña dagg ay cari garab lal leen nit ca yoon wa mbooloom ña ko jiitu ak ña ko topp ñépp di wax ca kaw naan hosaana yow setu bi yow miy ñëw ci turu borom bi ku barkeel nga ca barab yu gën a kawe nañu ne osaana bi nga xamee ni yéesu dugg na yerusalem dëkk ba bépp yëngutu ne kii moo di kan mboolo ma tontu leen ne kii moo di ci yàlla yéesu bi jóge nasaret ci galile bi lalu amee yeesu dugg ca kër yàlla ga dàq ñépp ña fay jaay ak ña fay jënd mu daaneel taabal yi weccikatu xaalis ya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 yow sëtu bi ñu daldi mer noonu ñu ne yeesu ndax dégg nga li ñuy wax yeesu tontu leen ne waaw dégg naa ko ndax musuleen a jàng lii ci mbind mi ci gémmiñu perantal ak ñuy nàmp sàkkal nga sa bopp ay cant bi yeesu waxee loolu mu bàyyi leen génn dëkk ba jëm betani fanaan fa ci suba teel yéesu dellusi ca dëkk ba mu xiif noonu seen garab bu figg ca yoon wa waaye bi mu fa agsee gisu ca dara lu dul ay xob rekk ci kaw loolu yéesu ne ko dootuloo meññ mukk ca saa sa figg ga daldi wow bi nga xamee ni taalibe yi gis nañu loolu ñu waaru naan nan la figg gi daldi wowe ci taxawaay bi noonu yeesu tontu leen ni ci dëgg maa ngi leen koy wax su ngeen gëmee te ba a werante dingeen def li ma def figg gi rax ca dolli bu ngeen nee tund wële jógal tàbbi ca géej ga dina ko def te lépp lu ngeen laaj ci ñaan bu ngeen ci boolee ngëm dingeen ci jot ginnaaw loolu yéesu dugg ca kër yàlla ga di fa jàngale bi muy jàngale nag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 lu di seen xalaat ci lii kenn nit amoon na ñaari doom am bis mu ñëw ci taaw ba ne ko sama doom demal tey liggéeyi ca sama toolu reseñ taaw bi tontu ko ne maa ngi dem baay waaye demu ca ginnaaw gi baay ba ñëw ca ñaareel ba wax ko noonu mu tontu ko ne bëgguma caa dem waaye ginnaaw loolu xelam soppeeku mu dem ca noonu yéesu laaj leen kan ci ñaari doom yooyu moo def coobareek baayam ñu ne ñaareel bi kon yeesu ne leen ci dëgg maa ngi leen koy wax juutikat yi ak jigéen ñi mooykat yi ñoo leen di jëkk a dugg ci nguuru yàlla aji kawe ji ndaxte yaxe ñëw na ci yéen ci yoonu njub te gëmu leen ko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 mujj mu yónni doomam naan xëj na ñu wekk sama doom waaye bi baykat yi gisee doom ji ñu ni ci seen bopp kii moo war a doon tool bi nanu ko rey moom ndonoom ñu jàpp ko nag génne ko tool bi rey ko noonu yeesu laaj leen bu boroom tool bi ñëwee nag na muy def baykat yi ñu ne ko dina rey reyin wu ñaaw ni ñu soxor ñooñu batale tool bi yeneen baykat yu koy jox wàllam ci jamonoy meññeef kon yéesu ne leen xanaa musuleen jàng lii ci mbind yi doju tabaxkat yi sànni mujj na di doju koñ ci borom bi la loolu jóge te yéemu nañu ci loolu moo tax maa ngi leen koy wax dinañu leen xañ nguuri yàlla dénk ko xeet wuy def ay jëfam ku dal ci doj wii damutoo ku mu dal ci sa kaw rajaxe la bi nga xamee ni saraxalekat yu mag yi ak farisiyen yi dégg nañu léebam yooyu ñu xam ne ñoom lay wax noonu ñu di ko fexee jàpp waaye ragal nañu nit ña ndaxte ñépp teg nañu ko ab yonent